الحمد لله رب جاد بالخمر يدور بالصحب حول شمسك البكري سنقبة مدينة وبعد بدع بسم الواحد الصمد بالحمد والشكر دعبا فائق القدر سنجبك مدينة على نبي سلاما خالق وعلى أصحابه آله أقيام في الزمر فحك نظما حديت رصد للعبد دوما يفوق نظام الضر في النذر وجوغاند لي ني ام لي لين كو ماي موي سوبانتي بغي يالا اك يونن teral seeni way jur jital njaboot maam Fodé xaritoog rasulillahi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu su ngeen déggee matku nabi yooyu xel yëpp dem fan ci yàlla ak yonent bi ak Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam fan ci ku tedd ku sell borom xam-xam borom wilaaya muy njaboot gi ñu war a woote. journée de rappel di ko wooteel nitu yàlla bu mag boobu nga xamante ni moom la yëkkati wax ju mag ja jëmale ko ci moom ni ko biyoru tuwe zixt daarul yum ni wala baraka insha am man qadara sukkoon wala xaraka ba xasida ba jeex fa tabarakallahu mooy borom jihaat bu mag bi ñu war a amal ko bis bis bi nag duñu def lu jël kàddu gi jox ko kii nga xamante ni mooy son excellence monsieur l'ambassadeur Cheikh Mafodé Ndong di sët ci ki nga xamante ni mooy borom bis bi nga xam ne moom la ñu fas yéene fàttaliku muy porte parole it njaboot gi macha allah fa tabaarakallahu kon moom la ñuy jox kàddu gi rek muy def ci woote bi bii nga xamante ni muy woote bi lislaam woote jëm ci yàlla woote jëm ci yonent yàlla muhammad woote jëm ci nitu yàlla boo xam te ne daal ku ne xam na ni juboo naag borom ci mim réew mi kon daal kaddu gi dañ koy jox son excellence monsieur l'ambassadeur kaddu gaa ngi ni aouzu billahi min ashaytaani wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa wasilatuna muhammad wa ala wa sahbihi wa sallam tasliman ñu ngi nuyu bokki jullit yi yëpp si Sénégal ak li ko wër eh, di nuyu kilifa tariqa yëpp ci senegal eh, di xamle ne bés bi ñu ngi ko tuddee journée de rappel fa dhakkir moo ni si yóbbu fa dhakkir in nafaati dhikra yàlla ñu ko sant dee leen fàttali ndegem li ngeen di fàttali am na njëriñ te ñun nag ñu foog ne li ñuy fàttali am na njëriñ parce que fàttali koo xam ne ba nit ñi ut leneen di ut ay nguur di ut xaalis te mu mënoon a laaj nguur nag parce que si famille buur la jóge loolu dinañ si mas a ñëw ootewul buur ootewul ut xaalis mais si yàlla la oote muy kan muy Cheikh Fodé Lamine Ndong bu joogaan dans les îles du Saloum tabaarakallah sanal xaaliqiina moom lañuy defal journée de rappel boobu pour fàttali li mu liggéey ci diina ji depuis mille huit cent mu juddu ci at boobu ba mille huit cent quarante deux ñaar fukki at ñëpp ci mille huit cent soixante mu commencé oote ci ili ci diina ji te boobu diina ji xaw nafa fa tumuranke lool kooku la ñuy fàttali jaar-jaaram parce que yemul si jàngi rek ñaar fukki at dafa ñëw xotti jihaat loolu doyul mu solaat dàllam dem Mauritanie dem dëkk bu ñuy wax xawdu ñii ñu ne Cheikh na Mouhamadul Fadil la fa déggoon turam muy waajur Cheikh na Cheikh Sadibou mu dem yàlla def fekku ko fa mu dégg Cheikh na Cheikh Sadibou dëkk bu ñuy wax Tuway Ziqt mu dem Tuwaysirte en mille neuf mille neuf cent un la ko fa fekk nekk ak Cheikh na Cheikh Saadi bu fukki at ba mille neuf lay soor a dellu si waat si il yi kooku bon loolu mu liggéey yëpp si diine ji te manoon a uti leneen la ñuy fàttali nit ñi ndax ñu mañsee jëriñoo surtout ndaw yi moo tax ñu tuddee ko euh, rappel fa zakkir boobu aaya alxuraan boobu ne nañu fàttali nit ñi moo tax ñu bëgg a fàttali nit kooku fan la jaar ak lan la def li si des nag muy programme bi kañalaak nuñ koy defee ñu ngi koy bàyyee secrétaire général association des petits-fils de Cheikh Fodé Lamine Ndong de Diogane ñu koy wax Mouhamad Lamine Ndaw mu wax ñu ko wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam asalaamu wa rahmatullah donc ñu delluwaat nuyu ñëpp donc à mon nom en tant que secretaire général de l' association des petits de Cheikh Fodé ñu yëkkatiwaat suñu kàddu jëmale ko ci programme journée de rappel kañ lay am le 15 juillet 2023 fan la sa HLM Grand Yoff en face stade Léopold Sédar Senghor donc journée bi nii la nar a à partir de 10 heures ba midi danañ wàccee kaamil def récital Coran 15 heures ñu def mise en place à partir de 17 heures ñu def cérémonie officielle suivie de la conférence ñuy revenir juste ci l'objectif visé ci journée rappel bi ñu ngi koy jëmale ci góor gu mag Cheikh Fodé Lamine Ndong ca Diogaan chaque année dañuy def sunu ziar annuel dernier samedi ci mois de décembre mais on avait jugé nécessaire ne baaxoon na ñu jagleel ko bés ca Dakar pour ñëpp war a mën a fekkee ñu tuddee ko journée rappel donc ñu siy oo toute la communauté musulmane toutes les confréries confondues mais surtout la jeunesse sénégalaise parce que journée aussi de rencontre la entre ndaw yi ak mag yi parce que ci conférence bi chaque jour dañuy am benn thème spécial boo xam ne ne dinañ ci waxtaan yàqu-yàqu àdduna naka lañ def ba gën a war a mën a jëriñu ko si suñuy mag yi donc ñu si oo ñëpp bu ko kenn uutee ndax journée islaam la journée bu ñuy jagal ñu ñitu yàlla la ku ñu war a mën a xam biir Sénégal ak bitim réew donc kàddu gaa ngi noonu ñu ngi gërëm suñuy kilifa yi nga xam ne chaque année ñoo ñu siy gunge di ñaan ñu fekkee ko ak jàmm ak salaam. mbokk yi fa tabaarakallaahu kon dégg ngeen kàddu yooyu jóge ci kii nga xamante ni mooy porte parole bi di son excellence monsieur l' ambassadeur Cheikh Mame Fodé Lamine Ndong ñëw ci secretaire général waaye li su amee nag mi ngi amee ci kilifteef ci ndigalu sunu xalifa général Cheikh Siyaaka Ndong yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu ànd ak wér lool di xalifa Cheikh Fodé Lamine Ndong kon nag mbokk yi bisu fàttali la rappel boo ko déggee muy fàttali ku ñuy fàttali kii nga xamante ni mooy Cheikh Fodé Lamine Ndong ay jaar-jaaram li mu def ci diina fa tabarakallahu kañ la le 15 juillet lay doon fan la fii ci asalam Grand Yoff lay doon jàkkaarloog stade Léopold Sédar Senghor kon ñu ngi woo Murit Tijaan Xaadir Laayen Dabaax yi ki wax ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammad rasulillahi ñu ngi lay woo ci bis bi bu ñu xëyee dinañu jàng alquraanul karim di waxu yàlla dinañ dem am nañ ko defee 17 heures ñu def cérémonie officielle bi suivi de conférence guddi gi ñu tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam fa tabarakallahu kon mbokk yi woote bàngoog ñi ngi ñaan daal képp koo xam ne dégg nga sunu kaddu rek mooy sa kaddu invitation ñi ngi lay woo ci bis boobu le 15 juillet fii ci HLM Grand Yoff jërë ngeen jëf lu waay jàpp na bee gëm ala kulu fatle fadla la fadla lu waay na bee gën ala kulu fadle fadla la fadla merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo